mais non. c'est-à-dire Omar Faye ces attaques là. mais Omar Faye ces attaques là yi. mais mais fan la attaque rek dama ne. non dama ne non mais il a attaqué. ah bien sûr. dama ne man ce que j'ai dit du ma ci dellu ginnaaw. waaye yow yow it léegi moom mu dee discours communautariste. waaw mais moom loolu c'est ça qu'il a dit. non non moom la non non dama ne il faut c'est ce discours. communautariste j'étais clair xam ne ma mais dama ne xam nga lan moo bon c'est c'est-à-dire cette hypocrisie là qui consiste chaque fois di faire des insinuations di dal ci kaw nit man loolu du ma ko dama ne dama ne du ma ko nangul doomu aadama laa wax yaa ma dégg ko nangul kenn ces insinuations hypocrites là man du ma ko nangul kenn ces gens là yi nga xam ne heure bu ñu xëyee xam nañ fu ñu jëm ba pare bu ñu ñëwee fii di défendre yenn position yi man dama ne dama ne ça que ça soit clair voilà kii moom du du ma man ce que je voudrais tout simplement dire à propos de la sortie du procureur foofu laa bëgg a dellusiwaat le procureur moom daf ne dafay diligenter une enquête d'abord moom il est disqualifié xam nga tax il est disqualifié parce que yow mënoo ñëw instruire à charge ba pare tourner na de je confie l'enquête à la DIC et puis dans pareil cas il ne lui appartient pas de diligenter une enquête moom xam lan moo ko war il doit saisir le procureur général le procureur général daal di jàpp jël la chambre d' accusation chambre d' accusation ñoom ñoo war diriger enquête mais procureur yoonam newu ci dès l' instant que dafa am garde à vue mhm. moom ay abus il ne lui appartient plus moom mu ne day diligenter une enquête il doit saisir le procureur général procureur général jël chambre gis chambre d' accusation ñu def requête et on ouvre une enquête donc moom il est disqualifié xam nga man moom laa ma ne dama ne Serigne Bassirou Gueye c'est-à-dire luñ ko nit ñi bañ bañ bañ ko bañ bañ sëñ Bass ak kii sax bokkul parce que voilà un procureur boo xam ne wax naa leen ko chaque fois qu'il soor c'est pour faire de c'est-à-dire pour dire des catastrophes xamul li muy def xam ko sa première sortie ba mu koy def la mu doon wax lépp dañ ko ko bindal muy liir loo xam ne nii xamu ko maîtriser wu ko et ce qui est plus grave procureur bu toog di liir di juum ci loo xam ne nii cest à kenn xamu lan la procureur boo xam ne dem na ba nga xam ne même les monnaies des des pays étrangers sax xamul na kii moom mom lii xamul na kii moom lii. stressu cam stressu yi la woon. non dama ne non ci am parce que il ne maîtrise pas le texte xam nga mënoo ñëw ñu jël texte bind ko jox la ko ne la liiral mais où est l' indépendance du magistrat man waxuma procureur mais l' indépendance du magistrat où est-il où est-elle. non c' est pas une question de première. Abdou bàyyi leen Abdou bàyyi leen di wutal c' est pas une question de première sortie et cetera du problème loolu fii gis nañ fi des magistrats yoo xam ne seen première sortie ba ñu toogee dañuy wax gis nga gis nga dëgg nee dëgg boo ko amee amul première amul dernière sortie gis nga boo toogee di wax dëgg c'est-à-dire loolu wax noonu les les mots viennent aisément tout ce qui s'annonce clairement cest dire les mots viennent aisément loolu la boolu wax mais bu fekkee ne da nga ñëw ñu bindal boo xam ne la ngay lire xamuloo ci dara boo ñëwee ay tojaange dong ngay wax loolu moo tax la mu wax ci France bii mu génnaatee fii yow nan nga mën a ñëw taxaw yow yow nga chargé nit ki ba pare tourné léger diligence une enquête yow kay yow kay yow yow daf nga li nga def ba pare comment tu peux dire que y a une vidéo de 13 minutes wax li ngay wax ba pare chargé nit ki tourné na damay diligence une enquête mais loolu aussi c'est des c'est moo tax ma ne tey le problème qui se pose fondamentalement gis nga man politicien du ma la dara de même le président la république sax du ma ko wax dara xam nga lay wax cest à bi nga xamante ne ñoom seen wàllu bopp ñoo deful seen liggéey waxuma toute la magistrature de am na ci fii des magistrats très indépendants. Mhm. très impartiaux. mais le problème qui se pose aujourd'hui dañ ci am ay xeetu magistrats yoo xam ne ñoom seen wàllu bopp ils sont soumis à l'autorité de la loi mais pas à l'autorité du président de la république te loolu dañ ko bind dans la constitution. d'accord xam nga nag Kéba Mbaye dafa lu baax gis nga juge ci mhm. koy may sa bopp c'est un état d'esprit kenn fii la taxaw fii mu ne magistrats yi seen wàllu bopp. ça nous renvoie tout simplement dire boo leen takkee ba pare yeewi leen dañuy bëgg nga yeewaat leen bu Abdoulaye Wade moo leen ko wax fii loolu daf leen waroon sonné benn genre révolte boo xamante ne nii ñu ci bëri dañu waroon jëngu jël seen indépendance mais jusqu'à aujourd'hui cette justice là moo ko nangul Macky Sall ci boppam moo leen moo ko wax ma ne une justice mise sous terre par euh, euh, comment dire sous la coupe de l'exécutif c'est mais mais suñu nekkee sous la coupe de l'exécutif c'est parce que dañ daf xam lu ñu bëgg mooy lan chaque fois danañ la jox ay privilèges bu ñu ñu tënk la téye la. d'accord loolu la gis nga magistrat boo ko nekkee da ngay am foo xam ne ni fa ngay mën a yemale sa bopp si tu veux mais soo bëggoon am indépendance nag c'est-à-dire fu la exécutif jaarale nga nga jaar fa loolu moo waral tey fi nekk nii magistrat yu bëri sur beaucoup de dossiers mënuñ ciy wax en toute indépendance loolu mooy seen problème. donc ñun suñu feebar fii dans sa pays là. c'est la justice du ma wax gis nga. man j'absous le président de la République suñu problème tey xam la c' est la magistrature dans ce pays ce n'est ni la police ni la gendarmerie mais c' est la magistrature. d' accord alors Cheikh en 30 secondes s'il te plaît ñu dem ci beneen actualité bi. Euh, peut-être euh, juste que daan ne euh, waxtaan moom ak démocratie li mu laaj mooy ñu am cette tolérance démocratique am cette culture démocratique le débat démocratique son charme c' la contradiction les positions peuvent être différentes, les opinions peuvent être différentes, mais il faut accepter que l'autre ait son point de vue. Il faut accepter la diversité. Mhm. je crois que lépp rek réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk. et tey la preuve euh, damay faral joxe benn exemple bu ma frappé xam naa ne dina sonal naa ko mais Amadou Sall dafa nekkoon ministre de la justice. Mhm. palais de justice bi bokk na si ñu ko inauguré bu bees bi. pourtant yóbbuwaat nañ ko fa ci biir palais de justice bi di ko fa àtte. ça veut dire que en fonction. tey mën nga nekk ci nguur suba nga dem ci opposition. tey mën nga nekk ci opposition suba nga dem ci nguur. loi Ousmane ngoom bii nii la ñu voté loon pour muy dal ci kaw opposant yi pourtant PDS bi mu demee ba nekk ci opposition même loi boobu moo dal ci kawam donc am na fu ñuy toll ci situation yi ñu génn précédemment tension politique bi coow politique bi et cetera baax na ñu am dal baax na ñu ànd ak dal mais surtout sénégalais lu ñuy xaar comme professeur li mu wax. mooy ci jafe-jafe yi ñu nekk yan solution lañ ci war a apporter mooy tey du point de vue institutionnel ban façon assemblée la ñu war a am yan réforme la ñu war a teg ci assemblée bi mooy tey li may faral di wax sunu justice bi nga xam ni góomu robaale la justice boo xamante ni nguur gu ñëw doole lay doon ci yow nga mën cee euh, nasaxal ki nga xamante ni moom ngay jàkkaarloo pour man ci question essentielle yooyu la ñu war a nekk je le dira euh, waa Aar Sénégal ison lan lañ génne nu mu tudd. dañu contrat de législature programme de législature. contrat de législature. contrat de législature. ils ont essayé am nañ lu ñu apporté Ousmane Sonko bindoon na téere solution foofu la ñuy xaar gars yi indi leen programme yi indi leen débat bi mu mu mais malheureusement. Mhm. Euh, nos hommes politiques ne sortent pas de Mars ou de d'une autre planète. ils viennent de la société sénégalaise. il faut qu'on recentre le débat il faut qu'on recentre la chose politique sur l'aspect humain que sur yenn valeurs yi nga xam ne moom la ñu am donc pour man loolu laa amoon lu ma ci wax par contre ici man dama lay wax procureur de la république. musul nekk. ñun dañuy jàpp ni sax day nekk procureur présidentiel wala dara. parce que même le ministre de la justice suy wax sax day wax à charge il est dans un parti ay saa yi mu ngi politique mu ngi meeting parce que ci parti la nekk ministre de la justice boobu mu ngi dépendre ci président de la république bi nommé di dégomé. la preuve bu demoon goxam mu perdre ko si élection yi président mën na koo dindi président bi ñu am hyper présidentialisme boobu ñu am mu am trop de pouvoir yu nekk ci loxoom ba mu mun ko téye ba mu mel ni dafa am sax droit de liberté ou de vie et de mort sax si nit ñi nan la président du moo toog wax dinaa teg ku dinaa bàyyi diw du ma bàyyi diw yooyu yëpp dafa nekk ci ay si sunuy góom yoo xam ne mu ngi ci suñu système démocratique ñu war ko dindi et tey pour man yu mel nii tey am nit ku ñu téye en détention c'est quand même liberticide quoi parce que pour man yen xar kanam yi la quoi c'est-à-dire Yaya Jammeh mënoon na jàpp ko ko neex Kani laay ñu def la lu ko neex du mujj fen il faut qu'on arrête et loolu nag li koy indi mooy ñu respecter sénégalais yi respecter sénégalais yi procureur la wax man mënuma ko gëm parce que système bi nga xamante ni moo ko tënk moom mu am ci ku mu dépendre mënuma munul wax loo xamante ni day am crédibilité ci man donc pour man benn jafe-jafe bi Ablaye Wade doon wax suma maam ji naan mën nga jóg ci crise bu ne mais am na crise judiciaire bu xasee ba dugg ci réew day indi jafe-jafe donc contrat de confiance boobu la ñu war a def maintenant débat devrait aller sur assemblée bi nan la war a mel. alors c'est le deuxième point c'est le deuxième point d'ailleurs euh, euh, justement. mais man Pikine laa ñibbi nag Pikine laa bëgg. <laughs> Euh, professeur ñu gis ne peut-être ñi fi toog ñëpp. Euh, teewal nañ fi benn benn coalition euh, yow amaana mën nañ nekk euh, da nga donc da ngay gis les choses ak ak ak benn recul peut-être boo boo koy jàngatee ñuy dugg ci élection législative 31 juillet 2022 ñu gis ne que amoon na coow ci investiture yi amoon na coow euh, ci euh, euh, nu ñu tëggee liste yi ba mu am séparation de liste ñii seen titulaire dem ñii seen suppléant dem de manière générale naka nga gisee élection yi ñuy ñuy dem et les enjeux de ces élections suñ ko bëggee jàpp lan lañ ci mën a xaar. ba may aborder point boobu dama bëgg a rappeler que la démocratie c'est la pluralité des opinions. Oui. dans le respect dans la connaissance et dans les solutions qui arrangent le peuple euh, peut-être que ñeneen ñi dañu ñëw représenter des groupuscules man je suis venu ici pour représenter le peuple conséquent du Sénégal ñi nga xamante ni Sénégal jëm ci kanam moo ñor te loolu am na ci APR am na ci AAR am na ci Yewwi Askan am na ci yeneen euh, parti politique yi tey euh, fi mu nekk nii dama gis loo xamante ni mi ngi tardeel Sénégal boo xoolee Sénégal dafa mel ni euh, tout le système démocratique mi ngi basé wu rek ci élection élection élection élection euh, maa ngi gis ni tey ku mel ni Ousmane Sonko ñu dénk ko Casamance le frère Barthélémy Diaz ñu dénk ko Dakar bu bu bu fekkoon ni ma jege naa leen di wax ak ñoom législative yi ñu dem yi ñu jëm man duma ci bokk en tant que xadimu rasul wax ni la solution est xadimique l'idéologie boo xamante ni dana rassembler toutes les synergies du Sénégal man bu ma nekkoon ci place Ousmane Sonko danaa tal leneen lu dul dugg ci structure boo xamante damay dem assemblée nationale jox nañ ma région boo xamante ni danaa fexe ba région bi mel ni Dubaï. mais ça l'un n'empêche pas l'autre. non attends parce que Sénégal. je, je précise qu'il est le maire. Euh, le maire euh, département. Euh, le le maire de Ziguinchor le maire de Ziguinchor tey fu mu nekk nii am na potentialité boo xamante ni war na ko développer ba structure yi nekk biir Casamance yëpp créer. des centaines de milliers d'emplois bu concentré woo ci loolu le frère Barthélémy Diaz concentré wu ci li nga xamante ni moom lañ ko dénk Dakar Fallou mi ngi nekk ci yeew yi comment se fait-il que tey ñi nga xamante ne dañu war a dem assemblée défendre loi yi man je préfère Fallou mi nga xamante kenn xamu mu dem foofu ñun Sénégal intellectuel yu bëree ñi nga xamante ni xam nañu ni addu bi du doxe bëriwuñu kon kay nañu dajale suñu synergie pour en faire une seule énergie de développement dafa mel ni que ñoom li leen intéressé c'est tout simplement l'alimentaire personnel il faut nécessairement ñu joxe ay solution ndax askan wi dañu sonn je prends l'exemple pour wan leen ni solution am na man dama nekk à l'étranger di dégg gars yi ñuy ñuy ñuy débattre ku ci nekk ñii di saaga fii Macky Sall ñii di saaga fii Sonko ainsi de suite tey un politicien sénégalais bu taxawee ni Macky Sall liggéeyul dañu la war a sànni ca seen ba un politicien sénégalais bu gisul ni Ousmane Sonko c'est un homme intègre c'est un patriote dañ ko war a sànni ci seen bi ñun nañu juboo ci suñu biir trouver des solution je vais donner juste une petite solution allez-y rapidement je vais donner rapidement une petite solution. Macky Sall jël na 43 milliards pour dimbali nit ñi tab ci tabaski bi. 43 waaw 43 milliards. 43 mm. milliards boo ko waxee nii les Sénégalais ne comprennent pas il faut nga subdiviser ko en unité million. 1 milliard ça fait million millions 43 milliards ça fait activités yoo xamante ni mun nga ko propulser ci ay nit ñu def dara. je vais diviser les 43 milliards en deux pôles 23 milliards pour le secteur privé sénégalais bi nga xamante ni ñoom ñoo ngi liggéey di mën a def plus-value ñooñu lay jox 23 milliards et les 20 milliards qui restent ma xool tey nawet bi nan lay def pour dimbale baykat yi nga xamante ni ci Sénégal amuñu jiwu le coefficient de productivité agricole au Sénégal est de 10 boo boo jëmbatee boo jiwee benn bërigo gerte am nga fukki bërigo cela veut dire que les vingt milliards en quatre mois six mois Macky Sall pourrait le transformer en deux cent milliards li ñuy wax nii yëpp dañoo yëpp askan wi seeni campagne yi ngeen di def yëpp askan wi la alal ji na ngeen ko jël dugal ko dans l'économie informelle dimbali nit ñi d'accord ñii di liggéey ñëpp tey fi mu nekk nii c'est des esclaves ils sont payés au lance-pierre c'est catastrophique pour un pays qui se veut un pays émergent d'accord tey mu nekk nii dañu waxante dëgg mhm. le Sénégal n'est pas un pays émergent le Sénégal est un pays pauvre endetté très endetté y a-t-il des possibilités économiques pour ñu génn ci la réponse est oui quand on a en projection un budget de 5200 milliards prenons 1 pour cent ça fait 52 000 unités yoo xamante ni mën nañ ko propulser d'ailleurs boo jox 1 million mi ngi liggéey ak 4 apprentis alors 50 000 fois 4 ça fait 200 000 on personnes yoo ni dugal nañ leen dans un processus d'insertion et de développement de notre pays c'est tellement intéressant ce que vous êtes en train de dire euh, qu'on va y revenir parce que je pense que euh, députés yi également ils ont leur part de responsabilité wala euh, benn part bu ñu war a jouer euh, par rapport à ce, yu jàngul à que vous êtes en train de dire yu non mais moo tax ñu war a mais moo tax ñu très bien parce que euh, parce que man li ma gëm mooy Sénégal au départ damay wax nit ñi dégg nous sommes dans un pays pauvre endetté léegi ñun nan la ñu mën a def pour que la population am am xëy du ma wax kenn ni dinaa la jox xëy boo xamante ni ce sera mes pérenne je vais raisonner en activité salariale de proximité génératrice de ressources nan lay def pour ponctionner à peu près trois cent milliards dans le budget nee na Un milliard, c'est 1000 millions, ça fait 300 000 personnes par année à raison de 1 million buñ ko defee dëkk bi dox. alors Fatou Abdou ñi nga xamante ni ñoo ngi nekk dans l'économie mais informelle nga xam ni kenn calculé wu leen dugg leen ci banlieue bi xool nit ñi nuñ sonne nga gis leen ñu nekk ay jàmbaar gis ñoo xamante ni dañuy jaay ay moteur ñii di jaay ay lal ainsi de suite ku ci nekk tu gères vingt à quarante personnes ñooñu la ñu war a dimbali. aujourd'hui yow mi nga xamante ni yaa ngi nekk ak le président mais Macky Sall il faut que nga wax ak le président mu aider le système privé sénégalais. d'accord alors marché yi ñuy les étrangers. nañ ko jox les sénégalais. le débat est très large euh, professeur. xam naa dinañ dinañ ñëwaat ci loolu yëpp. parce que y' a quelqu'un qui représente euh, euh, <laughs> fii la. <laughs> Oh, mu ngi noonu donc yooyu yëpp dinañ ci dinañ ci dugg. mais on va faire étape. solution mais pas discuter dans le vide. il faut des jox nit ñi solution. je suis d'accord avec vous. et wax naa la ko euh, c'était avec Fatou. La solution est khadimique. C'est clair, bien sûr. Alors, je te laisse avec euh, Fadi Fatou Abdou. D'accord. Alors, alors heure boo leen ma invité sur un plateau tout mm-hmm. ma démontrer leen ni boo leen jaaree fii sëñ Touba wax. Mm-hmm. ñëpp ay sauvé. alors c'est clair dinañ ci am euh, monsieur Thiam euh, ci ñëwaat alors Fadilou euh, six jours ginnaaw bi nga xam ne door nañu campagne électorale bi nga xam ne la coalition Yewwi Askan Wi dana woon du dem ci bii kaw élection.